bu wër bu dëpp si ñun ngay jaamu yàlla danañu ko wax topp yàlla danañu ko wax liggéeyal yàlla danañu ko wax waaye dara mënu sees fàtti dara du ginnaaw boo bëggee yàlla ba noppi te bëgg yàlla mooy li gën a wóor ngir ak bëggeel dafa am doole loo bëgg rek te muy dëgg si yow loola daal lay bëgg a moom donte aw fas la sax boo ko bëggee bëggeel bu wér mu daal lay bëgg a moom kon nag bëgg yàlla mi nga xam ne moo la war a moom loolu yàlla dafa bari njëriñ lool ci boo ko nangoo te la roban la caa ba ñu jëlee ko ngir sunu borom dafa wax ne inna lasina xaalu rabbuna allahu suma staqaamu fala xawfun alayhim wala hum yaxsanuun ñi nga xam ne nangu nañu ne yàllaay sunu borom te sax ca amuñu lu ñu war a ragal amuñu lu leen di jàqloo yàlla wax ne inna lasina xaalu rabbuna allahu suma staqaamu fatanassalu alayhim almalaikatu allah taxaafu wala taxtanu wa basiru bil jannati lati kuntum tuwaaduna kon nag moomale sa bopp yàlla ginnaaw moo la wax moom moom la nanu ko def bu nu ko defee mooy li nu gën a jëriñ léegi nag ma di leen xamal ne topp yàlla rek lu am njëriñ na naa si ci topp yàlla te yàlla mooy buur bu mat a jaamu mooy buur boo xam ne képp ku ko jaamu ak ak keneen bàyyi ko fi sawet dem jaamu ji leneen dul yàlla koo fee di jaamu ji barkeelu da nga ànd ak la muy jaamu fekk na fa yàlla soxla fa lu mu mënta ñàkk loo xam ne bu ko fa amee dina la wóor ne du ko amee fenn kon nag ku nekk ci woon yàlla bu la fa doole jëlee nekkal ci woon yàlla te fa ci yéene la yàlla santaane rek nga nekk ci bëgg yàlla nan ko def wóolu yàlla nan ko def ragal yàlla nan